Heavyweights.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 yóbbu hôpital saytu jàngorom ba gis ko sàkk ci saafara mala tamit naka noonu danañu feebar ñu seeti vétérinaire saytu seen jàngoro ba gis ko sàkk ci saafara nag jàngoroy réew mi moom kenn saytuwu ko ba ki sàkk saafara moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca waalo ca njuum doy na waar ab duwaaña la fa xale yi dëkk ba jàpp daa di koy duma duma yu metti ah, mbir mi nag nee ñu nii la demee benn jeune dëkk ba moo moo doon rawale ab marchandise boo xam ne fraude la ci noonu la ko ñaari douanier gisee topp ko daa di koy dàq-dàq yu metti ba teg ko loxo bi ñu ko tegee loxo nag ma ne ñaari douanier yi dañ koo duma duma yu metti blessé ko daa di koy gaañ-gaañ yu metti ba ci noonu la ñu jëlee xale bi rawale ko hôpital bi ko xale yi waa dëkk ba yegee nag ci la ñu mere dal di jóg sonné la riposte wër douanier bi ba gis ko daa di koy wër ndomb jàpp ko ci lu tollu ay ay waxtu wulli ko wulli ba muy gisi biddéew <laughs> eskay face à la gravité de la situation ci lañ amee réflexe su fokkati douanier bi ci loxo yi xale yi ko doon dóor daa di koy jël tëj ko ci am néeg <laughs> waaye kii xawtul ñu rey ko beneen douanier bi moom moo ëpp sens ndax may la def rek ci xale yi ma ne ci noonu ba ci ngoon la chef de poste bu douane bu njum ñëw ngir récupérer douanier bi xale yi teg loxo ci noonu moom tamit ndaw yi tëbal ko kay xeer waaye gone yi moom genre xew-xew yu ni mel nag nee nañu bari nañu lu muy xew ci yooyu gox ndax jënu dëkk bi mën a ci fraude bi la ñuy dundee ci la ñuy fajee seeni soxla askay réew mi ñàkk xëy te saa su nekk tuwaañe yi dañ leen koy xañ yenn saa yi dañ leen di dàq ba ñu dugg ci seen kër yi ñu loqati leen teg ci di leen duma duma yu métti ma ne yenn saa yi sax mu am ay moor ci jàppante yooyu di xew ci digg diggante douanier yeeg ndaw yi moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona laa wax la xew ca kër Masaar doy na waar ab xale bu jigéen la fa ab sàcc jàpp daa di koy dugal ci néeg ba noppi taal ko mbir mi mu ngi xewee ca unité 4 ca Kër Massar Aïssa Mbène Diouf at yi toll ci fukki at ak juróom-ñaar laab sàcc ki ndape ba noppi daa di koy tëj ci nekk taal ëskay nee ñu sàcc bi dafa dugg ci kër Njuufeen fekk fa xale bi moom cundum bi mu demee ba xam ne mënul jëlee dara ci kër gi ci la jàppee xale bi dugal ko ci nekk taal hmm, waaye dëkk bi moom day bëgg a toja li tax nag sàcc bi def lu ni mel yaayu xale bay wax de nee sàcc bi ñetti ñetti yoon ñëw na ko ci kër gi bu njëkk bi mu fay ñaw sàcc bi sàcc na fa ñetti portable bi mu mujjee ñaw ci kër gi nag ci la ko xale bu jigéen bi xàmmee ne ko encore ñëwaan nga pour sàcc si sàcc bi ne ko ha kon xàmmee nga ma xale bi ne ko waaw ci la ko jàppee daa di koy tëj ci nekk ba noppi taal ko waay waay kii ya bon ba dëkkandoo yee mujj dégg yuuxu xale bi teel a ñëw wàllu si ko dajji buntu bi xale bi daa di génn ma ne kon sinon lambay ñaaw saay-saay bi nag bi mu defee lu ni mel ba noppi may la def ma ne ko xam nga ne doo rëcc waay fi mu ne nag xale bi mu ngi ci ay soins intensifs waaye bakkanam nekkul ci xottu gerte alhamdulilah réew mi lu ne nga fiy dégg moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a garaaw corona laa wax la xew ca Tambacounda romb na doy waar papa ak doom lañu fa jàpp ci wàllum sàcc ëpp tëlloo doom ji di wuyoo ci turu M at yi toll ci fukki at ak ñeent ma ci lalub hôpitalam lañu ko fekk daa di ko fooy jëlee yóbbu ci kaso bi eskay nee ñu le 26 décembre bi weesu ca quartier abattoir la doom ji di wuyoo ci turu M Diallo gis ab moto gaara ci benn buntu bitik fekk booba foofa mu ngi weet ci la këddee moto bi daa di koy sàcc dem ak moom waay waay loo moomul ba ko fa waaye nag malheureusement ci ëllëg sa xale bi di dawal moto bi mu sàcc daa di ciy defab l'accident eskay dalante ak beneen moto dalante bu metti daa di ciy jëlee moom it ay gaañu-gaañu yu metti oh. am na ñoo xam ne kenn du laal seen laal ci lañ ko jëlee daal di koy évacuer l'hôpital régional bu Tambacounda entré ko fa way takk der yi daal di jël moto bi kaare ko ca commissariat bu Tamba xale bi bu mu nekk hôpital bay waaj a génn nag ci la doomu borom moto bi mu sàcc jaare commissariat bu Tamba xammee moto baayam oh coow dikk na ci la ko signalé way takk der yi ci lañ dem ci l'hôpital bi gone gi nekk daal di koy l'enquête xale bi nangu ne moo sàcc moto bi Oh! caaf ci noonu lañ ko jële ci l'hôpital régional bu Tamba daa di jubaleeg moom ca nungu siin ilaha illallah ci noonu la fekkee baayam bii di tees jàllo bi nga xam ne tek nañ ko loxo tëj ko ñaari atu kaso ci wàllum càccum jur loolu nag mu ngi xewoon ci bi ñu ne suba la korité ay waay tel tel fils moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona laa wax la xew ci àllu boo bayoot bi doy na waar de gannaaw nit ya fa jàppoon faat leen fekk booba dañ fa demoon diwtu ay bant am na ñeneen ñuñ fa jàppaat dal di leen wulli wulli yu métti ma ne xaw tuut la xewoon xewaat <laughs> may laaj nag àll boobu moom ah jar naa ligganti de réew mi li fi nekk kenn mënu koo wax mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz